wax nañu ci lu wér ci làmmiñu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wan na mbindam bind ne ganek Serigne Touba ci àddina ak dikkam ci àddina ci njël benn wax nañu ne njala dëkk bu mu nekk beneen du la wa dala diggante du la ak dala fasaasan ko bindee ba wan na ko wan ko Serigne Moussa Ka sunu baay bu baax ba di sunu Serigne te moom mbokk la taalibe la te juddoo fi ak ci waajuram sëriñ Moussa Ka yër ko ne ko Cheikh Mamadou Lamine mu ne ko Mbàkke mu ne ko lay sa lamb kasa min na bi nii lay sa lamb kasa min na bi nii mu ne ko numu mu ne ko mawlidu Cheikhul Khadim ganek sëriñ Touba bi njaay ganek sëriñ Touba ci àddina mooy Mbàkke Bawol ana luy sama dalil man Cheikh Moussa Ka moo di jëmmi alhaaji sëriñ Mbàkke Buso moo ma wax ci làmmiñam ne ma sëriñ Touba ama wax man sëriñ Mbàkke Buso ne ma Mbàkke Bawol ma gënal ci dëkkuwaay àddina lu dul Touba ngir yàtt Mbakke Bawol laa ganee addina ci la njëkk a tagee rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ci la na alxaaji Seexu Umar Fuuta Taal doon seet seet ma ni Sëriñ Muusa man Sëriñ Jataram ñii fa si naa waxtaan ak yéen man day xam naa ak gane addina xam naa tag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir gis naa sëriñ bi bind ko waaye euh, seet si Seexu Umar ga day am naa ca kunto bëgg naa nga leeral ma ci loo ca xam ñu ne moom sëñ Moussa Ka mu ne ma alaaji Seex Umar Fuuta Taal mbër la woon ci ñun yàlla aalim la wali la kaamil dem na ba yaakaar ne mooy ne ci kanam wala lu mu ca sikk mi ngi laaj boroomam nan maay borom jamono wala kan mooy borom jamono mu ne ko kay moom jamono borom jamono bakkata lay feeñee ñu yaakaar ne bakkata ni ñu ko waxee woon ci alquran inna awwala baytin wudi'a linnaasi lallazi bi bakkata mubarakan hudan lil aalamiin fi ayatin bayinatin maqaamu ibrahima daxaloo kaana amina wa lillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabila wax jooju sunu borom tabaraka wa taala wax ci alquran ci suratu ali imrana jëmmi makka taxoon muy wax mu daal di yaakaar ne makka la ko yebal mu daal di waaxu ba dem makka boroomam feeñu ko foofee ci xam ne ne ko bakkata gama la doon wax du bakkata gii bakkata ga ca xarbu laa wax waxuma gii ci sarxu ci penku gii ci sow laa wax ana bakkata gi nekk ci sarxu mooy mbakke bawal am na seere ci tur wi di sëriñ Fadilu Mbàkke mu baax mu xam mi nga xam ne mooy xalifatu Seexul di doom di jarbaat di taalibe gën a xam worom xam-xam yëpp ci wàllu yàlla ak wàllu sëriñ bi ba muy martial maam Mor Jaara mi ba sëriñ Mbàkke Bawol rahimahullahu taala war jàll na fana bii wax na ne waxali li xasri bak waxali waxali li xasri bakkata in alamat bim suubaaw min sanadin mujj li maanaam bakkata googu yàlla doon wax kër moomoon Mbàkke Bawol ba mu koy martial di ko jooy la tuddee Mbàkke loolu wir na ne kon bàkkata googee ñu waxoon dëgg la mu feeñ nag ci Mbàkke Bawol ba mu gënal ko nag dëkkuwaay lu dul Tuubaa ngir yett yooyu yi nga xam ne mooy feeñ gi feeñ ci Tuubaa ci ci ci Mbàkke ak nit ñi fi njëkk a tagee Rasulullaah sallallaahu ak seet si Seex Umar Fuuta googee nii mu ñee ko rek moom Seex Umar Fuuta jógee Makka ba dikkaat ci réewum Bawol nii dikki Jolof ba jëm si Bawol ba dikki fii ñuy wax buy fukki siir ci ni ñu ma ko waxee ci ne ak Tuubaa yónnee ci magi Mbàkke Bawol nañ ma utal fu ma danaa leen a bëggal wiisi ñu jël ko fu mu dal kër gañ ko njëkk a dalal mu ne toog as as liir daal di wax ne gañu ma waxoon du gii kër gañ ma waxoon du gii leen ma kër googee ñu ma waxoon xëy na ndimbal yàlla ciy dugg turu kër ga ak ak kër ga waaye xalaat ne kër ku ñuy wax maam Mouhamadou Seck nga xam ne mooy maam yi sëñ Mouhamadou Seck tàq mu baax mi suñu baay baax mi moo jur ci na la nekkoon fa kër gi ñuy wax kërum ñangeen nga xam ne fa la a Fadia man dëkkoon ba bisu tey ay taalibe ma fa dëkk moom Mamadou Fadia man a sëñ Tuubaa ko digal ne ko sax fi maa nga nekk sax foofa la kër googa ne fa la ñu ko dalal moom El Hadj Cheikh mu jógee ci kër ga mu wax ne dugg yi ñu ko foofa fekk googee ñu ko yóbbu mooy gamu ga def ko suñu borom tànnaloon a génne jigéen ñi ak gone ya mu am fa gis ku takk ab jaarub aqiqa ni ne ñoŋ la féete kaw mu ne waaye ñun day waaye da ngeen a bëgg baax ba xam-xam bi des ak yow sallallahu alayhi wa sallam daana ko dawaa daan féetale ñoŋ ci biir maanaam mel ni taarub addina bi gën a lu ko ci su fekk loolu aada la ci jamono gannaaw loola mu dellu soo xam ne dafa takkat lam ca tànk ba dugg ca kër ga muy maami sëñ Moussa Ka ka ñuy wax na Mbàkke nga xam ne moo jur soxna Sekk mi lay sëñ Moussa Ka mu takkat lam fekk dafa génnoon tukki ay fan ci gannaaw yëgut lu xew mu gana ngi fi ba tax ñuy génn jigéen ñi ak gone yi mu dugg ci ci kër ga seen la seen tànkam ba ak laman ba muy kër jigéen ñi naa ah, kee mu ne ah, loolu kat bokkut ci diine ji di jigéen bi dugg ci kër goo xam ne keneen ku ñu borom këram la fa du yoon ñii daal am nañu bëgg waaye danaa deseen ñoo xam danaa leen yar ci yoon te nam xalaatee ni ñu dal di génn mel ni kuy doxantu fekk nag suñu borom wanoon na ko ca penku ne ko boo kër ga nga xam ne falaa la falaa la bëgg a danaa la wanaat seet bii ab seetu masalan ci misaal mel ni noo ngi nii ci Touba nekk nii ci kër Serigne Diatara nekk nii ci néeg Serigne Diatara nii mu mel lal ba demee nii armal ba demee nii toogu ya demee nii masalan boo gisatee lu loolale foofa la barab ba ñu ba ca barab muy kër kër Mamadou Seck googee ba mu ba mu nee ci kër Mamadou Seck googee ba génn di doxantu suñu borom daal koy wanaat seetu boobale ba mu ko wanee seetu ba ca barab boobee nga xam ne fa la ko suñu borom tegtale woon ci bàkkata gi nekk ci xarbu ci sowu xamal ko ne ko da nga ma doon laaj rek ak laaj boo xam ne moom laa la doon xamal yow Seexu Umar ngir da nga doon laaj yaay borom jamono wala kan mooy la borom jamono gi di feeñe nga dem tànku ca ca ca màkk bàkkata la xarbu la mooy mbàkke bawol xamal ko ne ko kii nara moom jamono moom sunu borom xamal alaaji Seex Umar Fuuta Taal ne ko kii nara moom jamono ci waat ñii nu nekk ci dëkk bii nu nekk ci kër gii nu nekk ci lay ganee addina xat nii ak dëkk bii ak kër gii ren te booba dikkagul moom sëriñ bi ci addina ba mu demee moom El Hadj Seex Umar Fuuta Taal la sëriñ Touba feeñ ci addina wax na nañu ne moom rek a fa feeñ sax ci jooju la jamono. te moom bu jaxasoo nag ci yéen fi góor xam ni na mooy waaja waxuma laa ba xamee ne sax fam jaxasoo ba nga xamee ne feeñ na ci mbàkki bawal goog yi ci dëkk kër goog yi nga xam ne ndax kërum ñangeen nga xam ne sëriñ bi ci boppam fala feeñee baanaam fala ganee ci addina naan ma du sekk moomee dëkkoon fa bañ demee ba yàgg ci bopp nga xam ne dem na ci magi suñu borom xiirtal na ko mu sañ ci ci kër googale moom sëriñ bi ci boppam baam na fi lef ci njabootam gu fa des ñoo xam koo xam ne moom sëriñ fa lu ñu ñoo bokk ndey ndax soxna Faty Mbacké lañ koy wax ak keneen yaakaar na ñaar lañu daal ñoo xam ne nga fa soxna Faty ja defaroon na barab ba nga xam ne mooy barab ba sëriñ Mamadou Mbacké moom i defe naa keneen ku ku jigéen ci doomi sëriñ Touba fa barab ñangeen boobee ko daañu la ko won ñoo xam ci doomi sëriñ bi te ba mu fa nekkee leen fa am la leen fa kenn denc leen fa soxna Faty ja Mbacké mu tedd mi radiyallahu taala anha mi nga xam taaw sëriñ Touba defar na ko ni maanaa ñu tabax ko ma nga fa loolu mandarga la mu fés gannaaw boo xam ne jógee nañu nag Bawal diggante Mbakke Bawal ak Jolof ak Kajoor ak Saalum fu ci nekk sëriñ bi dem na fa waaye la gën a am maarifa daal maanaa daal ci mbiram gannaaw nit di ak gane adduna moom jàng fa sës ci loo xam lu maanawu la jàng yi it wax na sëriñ Basiiru Mbakke moom jëm mu ngi ci téereb Sëriñ Basiiru Mbàkke bi nga mu ne ñu ne baaxil xadim ku ko seet gis ko ci diggante fanweeri xat ya ak juróom jëm ci fanweer ak juróom benn ca xat ya ku ko fa seet ko fa fekk mu wax ko moom Sëriñ Tuubaa moom Sëriñ Basiiru nii Sëriñ Tuubaa ma ko wax ne ma sama baay Sëriñ Mbàkke moo daan te sëriñ na ma sama maam tafsir Mbàkke ñu ngi bokk sama maam astawaalo ndey ak baay kooku la ñuy wax tafsir Mbàkke mi nag mooy maam man mii di wax man sëriñ Jatara mooy maami sama baay moo jur ndey sama baay moom tafsir Mbacke Ndumbe tafsir Mbacke Ndumbe moomee mooy cam ya maam astawaaro moom la sëriñ Mbacke moo fab ci ci ñett li sëriñ Tuubaa ci làmmiñam di gëmul sëriñ Basiiru ne ko sama baay jox na ma sama maam joojale xabla bulooxi si nit taallu jëkk na ci man a ati dal jàng xam mëtagumaa dal xataa balaxa si nat taallu ni ma ko waxee ci na la ko waxee ku dem gis ko fa ba mu jot ati daal jàng fasara fi taxlimihi mu tàbbali di ko xamal atta xafisa alqurana ala yadi ba mu wattu alquran moom seexul xadim ci loxol maamam tafsir mbagge nu bi moomee xëy moo jur ndeyi sama bàyyi man sëriñ jatara sëriñ mor asta jatara asta mbàkke ma ko nàmpal tafsir mbagge nu bi moomee ko jur ci géejam bisimilah ba mu nekk tafsir mbagge nu bi di jàng alquran nekk na fa mu ne ak ku ñuy wax sëñ mor soxna sekk bàyyi sëriñ Modou Soxna Mbakke doomu ndey ci sëriñ Moussa Ka beneen li sax ci sëriñ Mat Lamin Jóob Dagana te ñoom ñëpp lu ñu wax dëgg la wax na ne laaj na sëriñ Mbakke Buso ne ko ku dalal sëriñ Tuubaa alxuraan mu ne ko najaayam sëriñ Buso bi mu bokk maam jaar ndey bàyyi nga xam ne sëriñ Tuubaa yàgg ci tànn de koo xam ñu ne ja maami boppam ji ak najaayi boppam ji najaay ji tàmbalil na ko moo ñoo sëñ Madu Muxtaar mbokkam sëñ Mbakke Buso ñoo bokk ndey moo ko mag ataaxa saqaam baadal xisaqi ba ñu ñaw maanaam ñu fer baadal xisaqi lenn ñaw maanaam ñu mën a xàmmee def ci araf yi waaye foofa la yem ak moom daal koy jébbal tafsir Mbakkin bi kii wax na ne baare ma ko jébbal tafsir Mbakkin bi moom señ Basiru nekk li bii ci sëñ Mbakkin bi ne moom it bàyyam sëñ Mbakkin sëñ Mbufoo bi na ko tafsir Mbakkin bi kon tafsir Mbakkin bi wér na ne moo ko xamal ndax kuñ tàmbalil baar ba nga xam ne rek tuuti ñu jox la ko ba nga wattu alxuraan ak ki wax ne jox na ma ko ba nga tëggu la dal lépp benn la ba mu jógee foofee nag ci ba mu nekkee ci tafsir mbakki nu bi ne na ne jolof la na gënoon a sax di nang nag di dikk mbakki bawol di fekk si maam balla ay sa moo nekkoon mbakki bawol bawol bu nawetee mu dellu jolof ni ni ni pël bi ni sàmm si def ne noonu la ko waxee suñu si noonu la ko waxee suñu mbéy mi ne noonu la ko ba mu wattu alxuraan maanaam faatu gannaaw bu mu nekkoon di bind kaamil bi alxuraan ca soosee saa di jàngal Serigne Touba ba mu wattu alxuraan ca soosee saa. di bind kaamil alquran tàmbali ñaari xaaj xaaj bu jëkk ak xaaj bu mujj xaaj bu jëkk ba ak mujj ba lu tax mu di ko tàmbalee ndoo mooy dafa bëgg bu xat bi tooyee balaa sedd mu bind yeneen xat ci beneen xaaj bi boo ak fekk wee sedd mu del fab ñu gaaw mbind daa nañu defee noonu daa bokk ci mën alquran te mën a bind te gaaw mbind mais diggante boobee nga xam ne moom la tàmbalee wattu alquran ak diggante boobee nga xam ne ci la doon bind wax na sax xaaju kaw ba moom sëriñ Basiru mu sëriñ Tuubaa ko wax ne ko ba ma tàmbalee ba mu tàmbalee Fatiha ak Baqara ba di ko Ali Imraan wa amma allazina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha xaalidun foofa la dal booba toll xaajab suuf ba ci boppam ba mbéy ko sayyidatuna Maryam alayhi salaam ba ci suratul furqaani ashaabul jannati yawma idin xayrun mustaqarran wa ahsanu maqila foofa la taxaw nga xam ne ay yërmande ak ay aljanna fi la taxaw sëñ Basiir ne moom daal am na arfaan bi gën a rafet ci arfaan yi te rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daana ko daana ko dégloo xarafaan ju rafet ngir di xamal Serigne Touba ba mu àgg ci wattu alxuraan doy naa yaakaare naa laaxira ci yëtub sayul nga xam ne ne sax yàlla boroomam moo ko xamal waaye teewul nit ku ne am nga fu mu jaar ngir bañ a Muhammad ibn Abdullahi ibn ibn Abdul Muttalib ibn Hashim mu ngi ganee Makkatul Mukarrama gàddaay di Madinatul Munawwara ku nekk daañu la nettali ak cosaan ku amul cosaan yu baax baaxu la ku nettali lu cosaan yu baax amul ak baax kaam ak baax dëgg dëgg de ca cosaan yi lañ gën a baaxee ndey ya ak baay ya ak nijaay ya ak maam ya moom nag looloo tax ay nijaayam ak i maamam di way xam dafa xamal ko lépp lu war a xam ci anamul sayr bi boroom nag ba mu xàgg nag ci boroom di ko xamal bisimilah ne maamam faatu arfaan ju rafet jooje sëñ Basiru ne nekk na rajulan saalihan baynan bokk na ci rijaal yi bokk na ci saalihin yi bokk ci indi jiyaani ci mënta seen mbakki ni bi rëy mu allah taala radiallahu fana bi yàlla ko sàmbaram da luy gërëm sàmm ci barkeem bisimilah ba mu jógee foofee ne dikk ci baayam jàng na ci moom laf ci xam-xam bu baax a baax dikk na ci najaayam sëñ Bousso bi jàng ci moom jàng na ci sëñ jàng na ci baayam sëñ Mbacke mu doon di sëli gannaaw bu jullee ci maamam loola la nag ba nga xam ne sax naa baayam nag ca Mbacke Kajoor diir bu yàgg mu xamal ko ci xam-xam lu bari amee ay taalibe yu bari def sëriñ buy jàngale bu baax moom moom moom sëriñ Mbacke mu doon di ko xamal fa Mbàkke Kajoor ba sëriñ bi yeewu lool ci anam gépp anam xam-xam gu ne ba nee da bokk na ci keewutal yàlla gam ko defal téere bu mu koy jàngal te xàggagut ca mujj ga taalib yee toll ca weti mujj xam ne maanaam nañ ko ca dindi ci wet googa ne baayam dana ko koy xamal ca suba ngir bëgg bu ngoonee mu noppal ko xamalal ko ñooñeem nga xam ne fa lañ ba dana leen mën a xamal loo xam ne àggagu ca moom sëriñ bi te moo ko wax sëriñ lañ loolee ñu sax ca sax ca sax ca sax ba àgg ci di jàng xam-xam bi ñu naan arol sëriñ Afi Ñang magi sëriñ Fadilu Mbàkke ñoo bokk soxna Awa moo ma wax man sëriñ Jatara ne ma seyxuna Ahmadul Xadim ma wan ab téere ne ma téere bii ndax sëriñ Afi ne seyxul Afiyati la ma daan wax seyxul Afiyati ndax xam nga téere bii ku ko bind ma ne ko déedéet mu ne sa baay a ko bind yow sëriñ Afi yor sëñ Abdu Kumba mu mu bàyyi sëñ affaire ñang sa baaya ko bind ci loxoom téere bii de ci laa jàngee xaaroon téere bii de ba koy jàng ci sama baay sëñ Mbàkke moroon te sëli sama bokkee dañ ma da am ree ndax ne sëriñ daal moo doy waar moom daal moo bëgg lu baax ne moom xam ne nag xam-xam ko man ñu jàpp ñu ne booba am na xel mu ko mën a jàngee mel ni dañ ko ëpp xel ci sayir dafa loolu tàmbateel yàlla la rek da du tàmbali fi saa si daal di daal di doxal lépp nee ñu mel ni dañ ma cee ree naa sëriñ de mosuma bari solo ndax xam ne ne moom day ñëw man xarul du ca bokk sëñ Tuubaa ko wax sëñ Afi sëñ Afi wax ma ko man sëñ jësal ñoom sëñ Tuubaa ma ko wax mais sunu borom mi dara tëwul dogal sama bàyyi sëñ Mbàkke Buran sëli taw mais may yër téere boobee di ko yër di ko yër di ko yër sunu borom di ma ko xamal ma di ko yër sunu borom di ma ko xamal ma di ko yër sunu borom di ma ko xamal min awwalihi ila axirihi la dale ca bopp téere ba ba ca mujj téere ba lépp ma xam ko na ko yàlla ak sëriñ ci bëggee ko xamee sama bàyyi bëggee ko ne xamee mais tawat ja dem ba tane ma seet si ko ne ko dama lay seet ci yaram mbaa féex na mbaa tane na mu ne ma tabaarkalla sallaaw fi mu ne féex na tane naa bu baax dara na xale mu ci tawat ji lu may seen xelluwa yu gàllankoor yi ci xamal gam leen doon xamal mais ma ne ko man man day sëriñ bi téere boobu bi nga ma doon xamal mel na ni xam naa ci lëf mu ne ma kula ko doon xamal yow sëriñ ma ne ko sunu borom mu ne ma ku la doon xamal téere boobu bi ma la dalaloon mu ne ma sunu mu ne ko sunu borom wax ko ñaari ba na bàyyiwul mu dem ba ca ba mu laal saay foofee ay laal saay ba ñu jàng mu woolu ma man Serigne Touba ba ma mu ne ma ana téere boobee nga doon jàng ma ne ko ma fa mu ne ma demal ma dem indi ko mu toog ma toog mu ne ma bisimillahi Serigne ñett lil li la sunu borom tabaraka wa taala xamal ci téere bii ma la doon xamal ba ci lu ma naqari ngir gàllankooru gi ci tawat ji nga ne sunu borom xamal na la ko nettali ma la la sunu borom doon xamal nga xamal ma ko ma dégg ko nee sa ne nee sëñ Tuubaa ba ko wax de nee ma tàmbalee ca bopp téere ba di ko nettali min awwalihi ila axirihi ci njël benn téere ba ca mujj téere ba rateet bàyyiwuma benn sara bàyyiwuma benn maanaam boo xam ne daal war nañ ko caa xam mu ne ma sëriñ ku la xamal téere ma ne ko sunu borom mu ne ma sëriñ ku la xamal téere ma ne ko sunu borom mu ne ma rëkk dénk naa la beneen nopp bu dul sama ak sa bu ñu ko di def bu ko waxati bu ko waxati di nekk suñ bi demee ba kamaal ba xam ne xalaatatul dara ci yëf yi adduna yi ku koo génn ña koo kii la ko door a nettali waaye na ko ci jël benn ko bu ko wax kenn ba mu saxee ca loola la ci boppam di jàng di jàng ba fànn yëpp yëpp yëpp jàng na ko jàng na ci sëñ Mbàkke mu rëdd sëriñ jàng na ci sëñ Mbàkke bi aslëf jàng na ci xaalima jaxate waaye ñu xaali nag jànguma ci moom ay tiir yoo xam ne ay tiir sàngam tiir sàngam la ak di ko laaj lëf di ko laaj lëf mu di ma ko xamal wala man liggéey lëf di ko ko wan maanaam mu di ma ko toppul dem nañ ca loola ba nangootu caa seet lu ñuy topp faf di ko jàng-jàng yi bari ma laaj ko lii nag mu ne ma léegi dama la seetalatul di la toppul di la defaral benn arab faab nga ma raw nga ma léegi sëriñ dama lay xamal ne nekkoon nga di doom tey nga nekk di bàyyi nekkoon nga di taalif tey nga nekk di sëriñ damay sàkkoo jàng sa sa taalif ngir ma wattu ko barkeeloo ko waaye seetatuma ko ngir ma defaral ci dara ngir raw nga ma mu sax ca loolee gannaaw maamam ju baax ja te sin a nu ak gannaaw najaayam ju baax ja sëñ bu suuf ak gannaaw baayam bu baax ba sëñ mbakki mu lam te sëli ku ne a nga ko ba ci xaali ma jaxate aslam mais am na naar bu ñuy wax Cheikh Modou Yeddaat yi nga xam ne njaañ la nekkoon njaañ dëkk ñu naan njaañ ñu jóge gànnaar fànni xam-xam yi nga xam ne daal mel na ni ñi ah, fii amee ñu koon mbaa jàpp nañu koon fii kookale ànd ak fànn ya nga xam ne bëggoon na koo gis mu di ko fekki njaañ ji xam lu xam-xam boobale wax na ni sëriñ bi am na ay téere yu mu xamal Cheikh Amadou Yadali yu mu gisaguloon Cheikh Amadou Yadali wan na ko ay téere yu mu gisaguloon mu boole yoon ci bawal ak ji réew ba gànnaar fànn yëpp mu dajal ko liñ fi xamoon mu xam ko ba noppi xam lu dafa gànnaar ba xam loolu lépp ci sayir fànn yëpp dajal na ko dal di sax nag mutaalaatu mutaalaatul kutubi wër na yi maanaam li li li ari soviéti maanaam ñi nga xam ne ñooy ñoom tasaw na ba gànnaar wax nañu ne dem na gànnaar ñetti yoon yoon bi ko tubaab bi yóbbu gannaaw yàlla sëñ Afi neema mooy ñetteel bi yoon di mu dem gànnaar sëñ Afi mag sëñ Fall wax na ma ko ne mooy ñetteel bi yoon dañoo defe ne yoon wu rek la dem gànnaar waaye sëriñ bi dem na gànnaar ci ñaar ñaari yoon njëkk yoon ko ci tubaab bi yóbbu di ko dénkaan ci Cheikh Sidiya bismillah siyaare ba mu siyaare ci làmmiñu sëriñ Afi Ñang magi sëriñ Fadil Mbàkke bàyyi alaaji Moodu Mahmoud Ñang man sëriñ Jatara bi nu nekkee ci kaamil beeg sëriñ Afi ci biir jàkka ji moo ma xamal lii may wax ne ma sëriñ Tuubaa dem na gànnaar ñetti yoon bii ko tubaab bi yóbboo gannaaw dogalub yàlla bi mooy ñetteel bi waaye dem na ñaari yoon yoonu jëkk wala cay seede boobu la toll ci biir xam-xam ak tànni sans borom yi nga xam ne diggante ulama yi nga xam ak ñi nga xam ne lawliyaaw yi nga xam ne kumilaaw yi ñuy dund ak ñu faatu ñëpp wër na leen